bismillah serigne cissé mu serigne babacar lañ dalal tay ji yaakar na né reug ak sathies dañu top ciow li ba tay ji ndax yaakar na né bokkon na ci serigne si nga xamné ni ñoo gennon né sathies tay dand rek rek muy serigne cissé mu serigne babacar tay nak serigne cissé bu mu waxé lolu xamu ñoon ci ban niveau la ko tegon serigne cissé ñu ngi lay nuyu bu baax di la ñaanal jamm ak sutura xewul yu bari di la sargal ci wër wi ñu nekk mi nga xamne ni moy wëru jigen ñi sa digënté jigen ñi nak ñëpp xam nañ ko di la wax sëriñ ci ñu ngi lay nuyu ak la ngeen nuyu ñu lay seetaan alhamdullilah rabbil alamin la hawla wala quwwata illa billahi aliyyil azim rabbi sarah li sadri wa yassir li amri wa waxlu lonqdata min lisani yafqa xawli bokk yu bax yi yi ngeen xamne waxtu wi ñu xamne yi dañuy bàyyi xel ci sëriñ ci officiel fu waay mën a tellu ak koo mën a doon jàppal ne maa ngi lay nuyu di la siyaara nuyu ak siyaara bi nag ànd nag ñaan boo xam ne am na fu mu commencé waaye amul fu mu yem leen rek laa leen dénkoon ci Serigne Cissé officiel nee naa leen nangu leen a abone nangoo partagé tey bés cloche notification bi saa su ne am naa cawarte xam-xam guy ñëw di ànd ak ci waxtaan ci tolluwaayu réew mi mm-hmm. kon bu ko defee maa ngi lay nuyu bu baax Fada mi nga xam ne mbokk la te mbokkum deret la ñoo bokk menn maam ca Ciisi Ahmed Cissé ca Pire ñoo ko bokk kon maa ngi lay siyaara bu baax di jox sa cër ak sa wàccuwaay ak mboolem mi ñuy siifur ñoom ñëpp Serigne Cissé yaakaar naa ne tey jii loolu am na solo euh, tey li ñu fi gën a indi mooy làmb ju mag yi nga xam ne moo fi jaar bu li nga xam ne coow lu jeexagut ci diggante Reug Reug ak Sa Thiès nga taxawoon en tant que ne Sa Thiès loolu sëriñ si ci loo ko tegoon. waaw baa may wax ci loolu kenn ku ne xam ne ne ñun bu nu toogee fii yàlla nga ko jaarale ci jëmmi jigéen ba nu gën a jamono. Uh-huh. kon mboolem kuy jigéen sëriñ Cissé moo ngi lay ñaanal yàlla tawféex sutura ñi nga xam ne nag ñu ngi ci sëy dama leen di ñaanal barkeeb sëy ak njaboot gu barke ñi nga xam ne sëyagunu yàlla may leen ay boroom kër yu baax. waaye mboolem kuy jigéen daal Serigne Cissé nee na moo ngi lay ñaanal yàlla tawfiix ak sutura di ànd ak yéen ci euh, journée de la bi di leen ci ñaanal yàlla ndax sëriñ Cissé de ak ñaan la am ak euh, ñaan daal am mu ngi leen di ñaanal yàlla mboolem kuy soxna <laughs> waaye euh, mu mel da nga laaj loo xam ne Fadam dinaa ci sawar a wax ndax fi mu toll koo gis ci réew mi mu ne seet yàlla def na ne Serigne Cissé mu Serigne Babacar si mii ngeen jàkkaarloo bu ma xëyee damay seet di seet. ba vingt jot ma daal di seet buñ ne vingt heures jot na nag aw ma droit seetati ndax lan laay def ñi nga xam ne seetal naa leen te gàllankoor yi nga xam ne yàlla def na mu nekk ci seen yaram ñu bëgg mu dëñ guddi gi ma toogaat ci der bi toog ci ba salaatul xayru mina naw mi ci liggéey yi ma siq ak ñoom ma doog a dugg sama néeg onze heures ma toogaat nekk ci jaam ñi nga xam ne yaakaaran nañ ma ci seet may seet di seet ba heure bi ma waxoon ma daal di ko tegaat foo déggee na vingt deux heures jot na sëriñ si toogaat na ci deram yor kurusam ci ñi nga xam ne dañ ma yaakaar ci seeni soxlaay bopp yi ci ay ay tooke yu ne ci seeni yaram wala ay mbir yoo xam ne dañ koo soxla te yaakaar ma ci ma nekkaat ca kon bu fekkee ne Reug wax naa ci combat Reug ak Sa ne man ku ne xam ne ni ma jaxasoo mbër yi ne ñoom ñëpp sama njaboot lañu waaye bi ma ko gisee la ma ca wax wax naa ko wax ja nag ma wodd ko lool mu ànd ak teggin ndax wax naa ne Serigne Cissé Serigne Cissé Sénégal la. Mhm. bu làmb jotee ndax bëgguma perturber nit. ndax bu làmb jotee da ngay gis Serigne Cissé toog ci kaw stade ba wax naa leen man seetaani wu ma làmb man gàllaaj lay seetaani ndax gàllaaj mooy sama liggéey. Mhm. bi ma koy gis ba wax leen ko li ma ko wan mooy ne. nit ki da ngay am yëg-yëg bo xamne li ñëw man kimay xibaar buma xibaare xamna ne duma nax te duma waxe hit bakkan wala succès. neena bu fekkone succès la yàlla jox na ma bu fekkene aw wërsëgu mo man suturalé sama bop la ak sama njaboot yàlla dimbalé na ma ndax man ki daan branché moma dimbale muy Serigne Mansour borom daara yi. ndax moma ma wax ci làmmañam na ma sujet mané la bayka mu ne ma danoonu tollu jamono jo xamne fi ci rew mi di Sénégal amul ko sante ay dara amul Mbanke amul si amul ñass amul laay ku jaaxle ci réew mi dina la woo kon man lii do dama cee am maanaam ndigal ndigal dama ko cee am moo tax lépp lu may wax du ma ko waxee bakkan wala wax ngir perturber nit ndax bu ma waxaan ci biir wax dama daan wolla ne sekk na ko boo gisee lu bari mënatuma ko leeral ci làmb kër goo dem ci ëhlu làmb am na ku fa doon sama xarit bu dee ñaar ñi doon bëree Xaadim Njaay suma xarit la liiru jaan suma xarit la bi ma ko gisee wax ko bi ma ko waxee gars xam nañ ne Serigne Cissé waxul succès waxul ngir perturber nit. Mm-hmm. da ko wax rek ngir wàcc laay taala. Mm-hmm. ci waxin moom ko waxee nag wax ja ànd ak yar ak teggin. Mm-hmm. waxul ko it ngir bàkku wala wax ne ñun la yàlla dàqawoon waaye yàlla danoo dimbale lu nu bëgg a xam ci nit ki danañ ko xam ak lu mën a xew. boo boo ñun ci askan wi ñu juddoo ca Saalum. léegoo li nit am soxla wala tawati yaram tawat ja nag def na fu ne dem na fa moo xam def nañ ay analyse def na nañu ay rajo def lu ne xamuñu feebaru feebaru lan la mu leeral na ne yow mën nga ko gis waaye góor ga koy faj nekkut fii ba tegtalal na góor ga fa mu ne mhm. lii feeg martabaam sëriñ yeggut fa du hagulub sëriñ mhm. loola nag la koy maye du toog kaala wu toog li ma la wax suba gi man nga xëy di recevoir di recevoir ba yenn heure yi nga daal di jóg boo jógee nag kurus ab sëriñ day ñeme kurus rawatina boo di ndaw ak mag te fekk ab bâtiment bu amul fondement bâtiment ba du baax dëgg sëriñ nag mooy ne da ngay ñeme kurus nangoo tudd ay ismulaayu ahsam di bàkk yàlla ndax ni ngay soxlaa sa géer taxaw di wax ak moom ci anam boo xam ne di ko wax ba yaram wa daw mu jox la sunu sëriñ ak alaaji Malick dafa am lu ñu waxaloon ci kuy bàkk yàlla alaaji Malick bi mu taxawee ci portu bi yàlla bi dafa taxaw jàkkaarloog borom bi na ko ku xeeboo xeeboo taxaw nag ci sa bunt bii waaye xabdun saliilun faqiirun xaasihon wajjulun su jaasehel aasifun waaye yallaahu yallaahu waaye ilayka madal yaddaa nag waaye rajaa am maxfiratin xablil musaamatan yallaahu yallaahu kon bu fekkee ne danga nga bëgg a sa bopp sëriñ te mënoo bàkk yàlla dugalub sëriñ bu hmm. fekkee it da nga bëgg a nekk nit koo xam ne da nga nam istixaaral nit di xam ay soxlaay biiram te moo ka mënoo dara ci alquran ne doo taxaw guddi gi def ay nawafil ngir soxlaay jaam ñi dugalub sëriñ kon ab sëriñ avant tout da nga wax loo xam ne looy wax yar dana la ca fekk teggin fekk na la ca ba xam-xam njëriñal xam-xam li li koy wane mooy ab yar waaye li ma la doon wax daal ci xam-xamu seet laa ko teg te xam-xamu seet bu wér péng nag waxuma seetu falaa falaa yi. Hmm? ay ñetti baat jox la ko non non. dama gis ne Reug Reug bu fekkee ne lii ko dal dal na ko. ci hmm. combat bi. Hmm. balaa maa ñëw ci carrière Sa ci dama lay laaj ëllëgu Reug Reug ci làmb Serigne Cissé. ëllëgu Reug Reug ci làmb sañ naa ko soññi. wax ju bari baaxut da yàqal nit na moytandiku yàllaa ka daan jox ndax ku bëree fukki fukki yoon ak ñeent koo mos a bëree daan nga ko ba ci quinzième victoire si nga mos a dégg muñal sant yàlla rek ko ko war moom Reug Reug ndax yàlla ma ka daan jox moo ko xëy ndax déglu naa yaayam la mu wax te am na loo xam ne sax bu amul war na du xam mooy kan fii la Reug Reug di xamee moom mooy kan fii lay xamee lan mooy carrière am ak wan yoon la war a jaar ak ñan la war a ànd ak yàlla nag li tax léeg-léeg ngay dem ba jamono mu teg la nattu bu la tegee nattu day bëgg nga def jàngat ci sa bopp te di yow kenn man lan moo tax Sa Thiès biñ ne bërit ma def nii lan moo tax lii ak lii nga xelaat bu dee ci mbiru entraînement la nga xelaat bu dee ci mbiru say sëriñ nga xelaat bu dee ci say wàllu kàddu la nga xelaat bu dee dafa am lenn loo xam ne dañ la koy da koy da koy defee nga jéem waxtaan ak balaa nit ñi la yedd yow nga waxtaan ak sa conscience tranquille yedd sa bopp loola rek lañ am luñ koy dégle ndax bu dee jëfi mbër rek rek rek am na ko kon la ma koy dénk xale la tollagut ci ñàkk bay toll ci am dégg nga bu ko defee rek fi mu toll la yàllay dogal dogal na ko na tëj gémmañam te nekk ci entraînement am li tax nag moo wax ko ko mooy ne caaro yi ña nga xam ne ñooy ay ñooy ay magam di ay baayam su may nit la nu ndax ni muy duggee caaro yi ni laa fay duggee am fay nit te lii ma wax ko ko dama ko wax rek ngir ngir nga xam ne xale la boo xam ne ku ko dimbale mën na doon ëllëg dara te wax ju bari mag ngi nañ ne baaxul day yàqalaate waxuñ ne nag waxam dafa bari waaye wax ji comme que la yàllay dogal dogal na ko na toog muñ te boole ci rek yàlla denc la lu ëpp lii yaakaar ne noonu moo jógee ci ëllëgu Reug Reug mm-hmm. noonu laay ñëwee ci ëllëgu Sa mm-hmm. mi nga xam ne nii tey jii lañ ko jox yëkkati ndamam jox ko te nga waxoon ne am ndam mm-hmm. te yàlla suñu borom mi nga xam nii mooy aji gi gën a kawe dogal loolu tey jii Sa tamit loo koy wax Sa Thiès li ma koy wax li ma wax Reug Reug rek laa koy wax mooy ne moom ci jëmmi boppam comme que yàlla dimbale na ko dem na wuti ji yàlla may na ko na gën a góorgóorlu uh-huh. bu góorgóorloo dégg naa nag mu wax benn baat naw naa ko ci muy lan muy fonk wéyjur fonk wéyjur woowee nag dana tax yàlla dimbali ko ci anam bu wér a wér wér a wér <laughs> ndax fonk yi fonk wéyjur ndax dégg naa mu communiqué ñaari communication yoo xam daf ma blessé mhm. benn bi mooy bi mu waxee ne am na ku ne bu ma daanee dana doon julli deuxième bi mooy ne buy bàyyi làmb wéyjuróom a tax muy bàyyi ndax pression bi yaayam de àndal <laughs> comprendre nga kon loola bëgg naa ko ci nit nit ak ku mën a doon àndal ak yar ànd ak teggin fonk say kilifa <laughs> maanaam yar dana tax ko xamu sax dana toog ci ruq di la ñaanal ñak discipline nit dana waral nit tollu ci àll ba di la te do ko xam kon bu ko defé mumi mi na gën a góorgóorlu li wax reug reug mom la koy wax moom na gën te gëna dal bu ko defé yalla mi dimbalé jam dimbal ndax ñoom ñaar ñëpp ci réew mi lañ dëkk uh-huh. sanni wante track bi jaru ko fi bu wut kenn am kenn ñak lolu am solo lolu am solo serigne Cissé mm-hmm. yakarna ba ñibi mm-hmm. te ki démb nag ah, balaa ma laa laaj ci wàllu seet. Mm-hmm. ah gis naa mooy ñaa nag mi nga xam ne nii mooy may sa xarit mi ci njobb. Mm-hmm. moom Modou Lo ca bés ba. daje mm-hmm. nañ fa. boo ñaa artinaagal Modou Lo ñàkk ko bañ a may jàmm. loolu tamit mu jaaxal ñëpp ndax booy ñang dañ ko dee ne ko da ngay jël roi des arènes bi ndax nii mu ñemee Modou Lo mbër mu su koo ñemee Modou Lo. ñeme na ko waaye mu ngi ñemee ku mu xamut. dégg mu li nga xam ne ñeme na ko waaye mu ngi ñemee ku xamut. gis nga Modou làmb jëpp d'accord nañ ne ku ko am am nga bis. la ilaha bis ba nag ci ñaari façon bu dee ci wàllu entraînement man xawma ca dara waaye wàllu yu ma xam muy mbirum gàllaaj wax naa fii woo naa Lamine sekk ne ko kii programme. Mhm. ak ki ñu programme du du benn. loo bëgg wax noonu Serigne xam nga ñoom ngóor soosu di takk weer yi. kan la ci ngor so di tak wér yi ma waxo kanji kanji mom di tak wér yi dama dem waaw yak assis da ngeen fay dajé ci stade ba combat ba neex lool deug la nga wara dajé serigne cissé muy final bi <laughs> serigne cissé ne la waaw li moy suñu première sortie hein première sortie bi nak yow kanji fum la jaral nga futi fa sa dalu serigne cissé dana ko jaral mu futi fa dalu wax la ilaha illallah ndax lan cadre mystique nag laay wax man ci cadre ñaan yàlla mystique. kanji de ceddo bu mag la moom. bul gis Serigne Cissé garam bu boom maa ko gën a nekkub ceddo. Hmm? façon yëpp laa xam. xam naa bu ñuul bi xam naa bi. ak ni mu def bàll gi numéro 2 mi nga xam ne ñëw dara Serigne Babacar Sy xam naa bu ñuul mi xam naa deret ji xam naa beneen bi ndax jamono toll ci xam-xam ci foofa. ah man de kan jëne dem modou yow gis nga bi mu duggé ci estade waaw fala la fekk fala ma fekk lan motax modou ñew mu jigé ñëron supporter euh, boy ña boy boy ña waaw dañoo mujj bayyi boy ña ñew ci modou wa lu waral lolu ki programme ak ki ñu programme dama gis dama gis boy ñak ñew estade jël côté chamoñ hmm modou ñew estade jël côté ndey jor ndey jor goor fu ci ëpp na la ko ñun wa droit lañu ñun wa droit lañu te fii laa yem wax ji ba daf am waaye daal ku foog ne lii dana yomb ci yow du yomb ci yow. mais nag Serigne Cissé yaakaar naa ne lii nga wax ci diggante Modou Lo boo am na solo ak Sa Thiès Reug Reug. Mhm. muy lu réew mi doon xaar ci yow. Mhm. waaye ma ñëw fii. Mhm. ba ñibbi. wàllum seet mi nga xam ni yaa ngi ciy toj dëkk bi. te lépp loo ci wax suñu borom day may la koy may mu am. wàllum ceet moom ñi nga xam ne ñoo nekk ci bitim réew la mm-hmm. nekk yi dëkk yi sorien mm-hmm. nekk ci ay tolof tolof wala ñu am ay kayit yu ñu bëgg xool wala ñu nekk ci ay wàllu liggéey mm-hmm. wala terrain yu ñu bëgg a jënd wala soxla ñu bëgg a dugg ñooñu nan la ñuy doxalee ak yow ni ñuy doxalee ñun du lenn lu dul numéro bi nga xam ne ñu ngi koy teg numéro bi nan la numéro bi nañ ci wootee buñ ci wootee ci deux cent quatre-vingt-dix-sept soixante-neuf mooy numéro boo xam ne Serigne Cissé ngay jot direct deux cent quatre vingt dix sept kon Serigne Cissé amul ñooñu nga xam ne ñooy téye mi téléphone beeg xaaral sëñ bi dafa jàpp yooyu amu ci. déedéet Serigne Cissé ngay jot direct ndax jamono ji dafa yàqu bër ci démb ci mujj benn waay woo ma na ma Serigne Cissé man de dafa am numéro bu ma woote woon jot te mu ne ma yow la dugalal naa ko nangam ma ne ko man de gisuma russi te lu ma mos a liggéey nit ci àdduna russi baa ci sama téléphone. kon nit ñi dañuy jël numéro nit di ki def naka su noonu waaye Serigne Cissé numéro bii muy woote. bu la kenn wuyoo ci beneen ku du Serigne Cissé jàppal ne du Serigne Cissé bii nag ma lay jox moom numéro Serigne Cissé la 297. 69 51. nga jot Serigne Cissé mu Serigne Babacar. bu dee ci réew mi nga ne te mën a waaxu ñëwit bu la neexee ñëw ci kër gi. boo ñëwee toog jàkkaarloo Serigne Cissé di ko gis mu lay gis la boo waree defee sarax mu ne la demal defe ko bu la war a bindalee ay ñaan wala ay cuuraay yoo war a suuroo ngir saytaane lu mën a doon ñu jox la nga yóbbu. loolu am na solo. di jaajëfal ñëpp nag ñi nga xam ne ñu ngi may xaar ci Serigne Cissé officiel xaar leen ma fa ndax man xam-xam may dundal. Mhm. te lu xew ci réew mi ak lu mën a doon. moo xam politiciens yi la moo xam musiciens yi la moo xam kat yi la Serigne Cissé dina génn waxtaan ak nit ñi lay xalaatal ndax yàlla dafa dogal ne porteur de voix la. Mhm. am na ñoo xam ne lu mën a mën a doon bu Serigne Cissé waxee ñoom seen xel dana dal dana ànd ak loolu toogaale ko. jërëjëf moo tax faaw nuy ñëw di waxtaan ak nit ñi. làmb ji nag taay moo yor coow li waaye ñu ngi ñaan yàlla yàlla dalal ko waaye yàlla coow li gën a bëri. yow yow yow réew mi ñu ngi lay gis ngay wax. Mhm. waaye dañoo xamul fa nga bokk. waaw waaw loolu ndax fa nga bokk ku fa bokk. Mhm. boo waxee war nañ laa dégg jërëjëf Serigne Cissé. jërëjëf jërëjëf.